bismillahi arrahmani irrahim rabbil alamin tey mooy sunu fukkeelu bind ci ar risaala borom téere bi dinu jàngal baabun fil xusli muy bunt bi muy jàngale sangu mooy cangaayal janaba ñenn ñi ne sangu farata sangu farata Euh, ñenn ñi di ko wax sangu set yépp benn la waaw da dégg léeg-léeg am ñu koy jéem a tàqale yépp benn la wane cangaayal farata mooy cangaayal yi dafa nekk farata maanaam du sunna nekku ne bu la neexee def bu la neexee bàyyi daa mënta ñàkk boo ne sangu set mooy dañoo jàpp ne da ame sobe boo sangoo nag daldi di set ca sobe soose waaw wane ne cankaayal janaba mooy da nga amee janaba ko amee janaba ci misaal nit ku sëy soxnaam dañ naan dafa amee janaba su ko defee kon ñu tuddee ko cankaay la yépp benn rek la mu ne baabu ndi buntu la fil xusli ci sangu amma tuhru ndaal sangu fekk tuhru laab rek lay fii di waaye fii sangu la ci jublu fa huwa minal janaabati ci janaba wa minal xaydati ak ci dogog dereti mbërëg wan nifaasi ak dogog dereti wasin sawaun way yemoo lañu mooy ca ngayal jana ba moo xam nit kii dafa ame amee janaba see soxna wala mu génne mën yu ak yu ko nuru wala muy jigéen ju de reegalam jeex muy sangu dereti baaxam wala muy jigéen ji dereti meretam jeex muy sangu nee na yépp benn la ñoo bokk nuñ koy defe amul ak tàqatle fa in iqtasara <clears throat> ndem gàttañlu na ndem yem na rek <clears throat> al mutatahiru aji sangu ji alal xusli ci cangaayul kese duunal wudu yi ci lu mu jàpp ci biir ajzaahu kon doy na ko wa afdalu lahu waaye nag la gën ci moom mi sangu an yatawadda mooy mu jàpp baada an yabda gannaaw ba mu tàmbalee bi xaslima ci raxas la nga xam ne bi farjihi nekk na ci sawukaayam ba aw jasadihi wala nekk na ci yaramam ba minal ada ci sobe su ma yatawadda topp mu jàpp wudu as salaati kem jàppum julli sangu janaba moom lu yomb la ñëpp mën nañ ko dangay ngay dégg naan mënumaa sangu ma ne axakay man ngaa sangu waaye dangaa da koo xamut xëy na buñ ne laa sangu mooy lii moom danga nga naan ah loolu kay naa ko sangaayal janaaba mbokk yi lu jàppandi la nit ki daal bu amee ndox ma mu war a am ndox ma ñu jàngale woon ci ginnaaw ndox moo xam ndox mu set wicc la dara yàqu ko dara rëxu ko boo yéene woon nga xam ne li nekk sa xol mooy sangu janaba rek yow daal del tànq di sotti di sotti sa yaram rek daal tàmbalee sa bopp di sotti mun daal fexeel ba yaram yi fépp na fa ndox ma àgg te foo sotti na nga bomb bu yaram bi dajee rek sangu nga janaba xam nga lii moom koo ko wax mu ne la loolu mën naa ko ndax ku ne mën naa xëppoo mu tàng nga ne damay xëppoo ndox daanaka waaw li ñu wuute mooy cangaal yaram moom da nga am janaba euh, wala sa dereti mbërëg wala dereti wasin dafa jeex mooy jaamu yàlla la kon kon saa yoo xamee ne kon képp koy déggati yow miy déglu vocal bi mun a sangu janaba dafa jafe ci man waaw ko day sangu janaba lu jàppandi la mu daal boo amee ndox mi Eh, yéeneel rek sa yaram bépp nga fexe ba xëppoo ndox mi mu ànd ak bomb nag sotti ndox mi bu ànd ak bomb ruq-ruqaale gi yëpp nga fexe ba yaram bi daal fépp dana set waaw loolu soo noppee rek am nga janaba de am nga càngaayal janaba wér na niñ koy jàngalee naan nga raxas lii raxas lii loola def day day aw yoon wu ñu sopp rek aw yoon woo xam ne ku ko man moo gën waaye nekkul ne li fekk defoo loola rek jana janaba kon loolu tamit yéen ñi koy digg ngeen labiré ci ñeneen ñi te xam ne lu jàppandee jàppandi la ndeysaan Euh, lu borom téere bu wax nee na kii sangu janaaba bu fekkee ne dafa sangu kese te jëppul ci biir cangaay li nee na loola baax na de waaw loola baax na ndax njàpp mi dañ koo sopp kon bu fekkee dafa sangu janaaba te jëpput ci biir njàpp mi benn benn mi ñuy jàngale ci biir boo ko defut dootee cangaay li wér na de waaye nag nee na ah boo ko mënee de nga jàpp ci biir cangaay li moo gën nga jàpp ci biir cangaay li yow mi jàngoon tasóori sixaar nag jàppal ne ni mu la ko jàngale moom tasóori sixaar moo gën a Euh, moo gën a jàppandi waaw moo gën a moo gën a jàppandi waaw te rek euh, dangay raxas say loxo euh, ñetti yoon wala nga raxas ko ba mu set boo noppee nga daal di jukki li tàmbalee sa jumbax ba sa bëti woom ndax foofa sobe si fa lay ëppee wala bokk ñu ne la nga xool fu sobee takk sa yaram rek nga fexe ba wàcce ko waaye diggante boobu nga raxas ko raxasaale sa awra fekkee nag teewlu nga yéene ji fekkee teewlu nga yéene ji raxas sa ginnaaw sa toogukaay lépp ba mu set waaw boo noppee nga daal di jàpp njàppum njàppum benn benn waaw bu jàpp ma jeexee nga tooyal sa loxo daal di xalil sa bopp mooy jël sa loxo teg ko sa ndong gi mooy sa dox ñoddi mu ñëw sëb jë nga delloowaat su ko defee karaw tasaaroo boo noppee nga as ñetti as sotti ci boppi raxas ko dañoo tudd ñetti as waaye nga raxas ko ba mu set rek la neexee nga tànk sa pot di raxas ba wala nga bu dee sas ngay sangoo nga tiim sas bi rek muy xelli sa bopp bam mu set rek waaw boo noppee nga raxas sa nopp ndeyjoor sa nopp càmmoñ boo noppee nga raxas sa doq ba mu wër boo noppee nga xaaj sa jëmm ji jël xaaju ndeyjoor ba raxas ba ci bëti wóom yi boo noppee jël xaaju càmmooñ raxas ba ci bëti wóom yi boo nga dem ca wóomu ndeyjoor ba raxas ba ba ca ndojor ba bu fekkee jàppoon nga euh, kon nga yem ca ndojor fekkee jàppoo woon nag nga jàll ba raxasaale tànk ba boo noppee jël wóomu càmmooñ raxas ba jàll ca baaraam yi rek loolu boo ko defee càngaay li moom jeex na kon boroom téere bi nee na la gën nag mooy nga nga nga jàpp maanaam boo raxasee sa loxo ñetti yoon ba noppi nga daal di jàpp njàppum benn benn mooy boo déggee mu ne wuddu aw salaati rek mooy nanga nga daan jàppoo day bañ nga defee ne meneen xeetu njàpp la na nga daan jàppoo rek mhm. <coughs> nee na la gën mooy nga jàpp man ngaa sangoota jàpp waaye nag la gën mooy nga jàpp takat boo sangoota jàppoo tamit du tee nga mën cee julli de jimmi cangaay rek wuutu na jàpp ci kaw nag euh, sa cëri cëri njàpp mi bi nga ko raxasee ba noppi difaatoo lu yàq njàpp waaw su boobaa jëmmi càngaay li képp mën naa julli masalan da ngaa bëgg a sangu càngaay loo xam ne doo ci jàpp te da ci mën a julli mooy da ngay eh, boo raxas sa loxo ñetti yoon rek da ngay tàmbalee sa jumbux ba ci sa bëti wóom mooy da ngay xaaj sa jëmm ji ñetti xaaj li tàmbalee sa jumbux ba ci sa bëti wóom nga raxas foofu ba mu set boo noppee nga raxas sa bopp ba sa jumbux boo noppee nga raxas say óom ba ba say bi tànk lii boo ko defee jàppoo te du tee boo deful dara lu yàq njàpp rek ginnaaw bu fekkee génnewoo ngelaw wala tuuroo ndox wala laaloo sa awara rek boo génnee bu fekkee da ngaa bëgg a julli eh, mën ngaa mën ngaa daal di julli incha allah wala boog saa yu waxtu jotee fekk defaatu lu yàq njàpp mën ngaa julli kon nu ñëw ci ni mu jàngalee ca ngaayal janaba mhm. kon boo raxas sa loxo ñetti yoon ba noppi da ngay raxas li taab sa ma sa sawukaay fekk yaa ngi teewlu yéene ji nga raxas sa sawukaay wala sa yaram fu la ci taq ci soobee nga raxas ko neena boo jàpp boo noppee da nga doog jàpp njàppum benn benn kon raxas say loxo ñetti yoon ñu ne mu ne waaw nga raxas fu sa yaram fu la fa taq soobee rek loolu dañ koo sopp nga raxas ko bala ngaa ca ngaay li fekk teewlu nga yéen a ja boo noppee nga daal di jàpp njàppum benn benn njàppum julli waaw dañ ko tuddee jàppum benn benn waaye boo ko raxasoo ñetti yoon it benn la rek fa in shaa neex na ko xasala mu raxas rijlay yaari tànkam wa insha ndeem soob na ko axarahuma mu yeexe leen mu mujje leen ñoom ñaari tànk yi ila axiri ruslihi ba ca mujjug cangaayam la nee na booy jàpp nag booy jàpp njàppam benn benn moomee mu la wax raxas nga say loxo ñetti yoon raxas nga fi la tax ba sobee teewlu yéen a ja booy jàpp njàpp moom bu la neexee nga jàpp nga jàpp ba àggal maanaam jàpp moom at sëkk nga xam ne raxasaane nga say tànk bu la neexee nga jàpp ba mu des tànk yi nga bàyyi ba cangaay li jeex nga doo ko raxas tànk yi bu la ci neex bu la ci neex rek def ko mm-hmm. euh, summa yaxmisa topp mu nuural yadayhi ñaari loxoom fil inaay ci ndab li wa yarfaahuma mu leen yëkkati ñoom ñaari loxo ye gayra xaabidin mbir mum du aji ngëpp bihimaa ci ñaari loxo ya shay'an dara fa yu xallila muy xalil bihimaa ci ñaari loxo ya usula uh, shaari rasihi cosaani mooy saxukaayu karawu boppam waaw saxukaayu karawu boppam moom ni mu ko waxee nii dafa xaw gudd maanaam li mu la bëgg a wax rek mooy nga tooyal say loxo daal di masaa sa daal di xalil sa bopp lool daal nga tooyal say loxo waaye moom ni ngay tooyalee da la koy jàngal mu ne da ngay jël say loxo nga nuural ko ci ndab li ba mu tooy su ko defee fekk nag doo doo ngëb ndox de maanaam loxo yi day tooy dong doo ngëb ndox nga daal di xàllil sa bopp kon daal ci gàttal nga tooyal sa ñaari loxo yi teg ko sa ndong gi xàllil ka da koy tàmbalee sa mujjug bopp bi daal di xëcc mu ñëw sa jën nga dellawaat loolu day tax karaw ko ubbeeku ngir boo koy raxas mu mën a jàppandi loolu moo ca moo ca tego mm-hmm. lu ca tegu mu ne summa yaxrifu topp mu as bihimaa ci ñaari loxoy alma a ndox ma ala rasihi sotti ko ci kaw boppam bi ñaata yoon mu ne salaasa xarafaati ñetti tànk xaasilan mbir mu muy aja raxas loxoo ñeel bopp bi bihin na ci loxo yi waaw wa tafalu dana def daalika loole almaratu almaratu jigéen it noonu rek la koy defee kon ginnaaw bi nga xalilee bopp bi ba noppi nga daal di ñaak waaw tibb sa ñaari loxo ndox ba mu fees dell nga sotti sa bop raxas ti baar sotti ti baar yor satala di jàppit dangay ngay xeeli rek di xeeli xeeli ba bopp bi set bu dee ab sas la da ngay xeeli eh, da nga ciy sotti bu dee pot ngay sangoo man ngaa tànk di sotti rek ba mat waaw waaye nga def ko ñetti as nag moom lañ gën a moom lañ gën a sopp ñetti as yi bu fekkee setut ni ki koo xam ne karawam daa bari wala muy muy xeetu tubaab ak naar ah, kon koobaa koobaa dañaa ko ñetti ñetti ñetti as yi baaxul de da as rek mu set wala da ngay raxas ba keroog mu set rek loolu man dañee bàyyi xel kon nag xalil nga bopp bi ba nga noppee raxas nga ko ak ñetti asi ndox lu ca tege Euh, foofa boo demee ci tasu sixaar la ca teg mooy raxas sa nopp ndeyjoor sa nopp càmmoñ ak sa doq yooyu yëpp ci la bokk nee na jigéen it noonu lay raxas boppam karawam da koy raxas ba mu set ba deru booba karaw yu tooy deru bopp ba fa mu saxee day tooy wa tadgadu wa tadgadu dana bës moom jigéen chaara rasiha karaw boppam walaysa alayha waaye déet ko war xallu iqaasiha firi léttam ya waaw nee jigéen tamit bu fekkee léttu dana sotti ndox mi bës ko ba ndox mi àgg ca deru bopp ba waaye nag kenn du ne ko dangay ngay firi sa létt yi waaw dañuy nettali ne defe naa sunu yaay ummu salama moo ko laajoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko man de dama euh, léttu ndax su may dama koy dindi mu ne ko na la rek nga euh, sotti ci ndox mi nga as tànk sa loxo di sotti sa bopp bi ba deru bopp ba rek nag boo noppee nga sangu ni nga war a sangoo mhm. waaye loolu wax ne ba mu des ñaar bu fekkee karaw ga kat da nga yokk lu ca bokkut da ngaa léttu takk ca leneen lu ca bokkut rawatina mu bari nga xam ne lu bon na ñetti takk dañaan sax mat na ñetti wëñ waaw ah. boo jokkee ci leneen lu ca bokkut ñu ne du baax faaw da koy dindi bu dee sa waaye ni nga léttoo dañoo fas létti ba boo sottee ndox du àgg ci deru bopp ba kooku subaa dañ ñaan kon doo ko mën a ñàkk dindi waaw demee la yeneen mas yeneen bi ñoo gën a oyofal foofu hmm. moo tax daal jigéen daal nay léttoo karawam te buy léttoo létt yi rek na yem nga xam ne daal lu mën a xew dana mën a raxas bopp bi jigéen ñi ne raxas seen bopp yi moom day mel ne sawaruñ ci xaw ma lu tax waaw raxas seen bopp yi sawaruñ ci de waaw xaw ma lu tax nag xaw ma de bañ mu am xet waaye nag sangu janaaba moom farata la boo raxasu sa bopp boo julee du baax loo defati du baax ci loo xam dañ ci sart ak laab summa bu topp mu sotti almaa ndox ma ala shiqihil aymani ci wetuk ndeyjooram summa ala ay sari topp mu sotti ko ci wetuk càmmooñ ba wayeta dal la ko tam koy bomb waaw maanaam ginnaaw bi nga xalilee sa karaw raxas sa bopp bi ñetti yoon raxas sa sa ñaari nopp ak sa doq waaw bu dee jigéen it nee na mu def noonu mu fexe ba deru bopp bi tooy neen la ca tege mooy nga xaaj sa jëmm ji daa di raxas sa euh, xaaju ndeyjoor bi waaw tàmbale ca loxoom ndeyjoor ba jël genn wàllu dënn genn wàllu dënn genn wàllu biir genn wàllu ginnaaw gi sa toogukaay nga jël benn genn wàll gi raxas ko ba ca ba ca ba ca ba ca euh, ba ca óom ya waaw boo noppee nga jël beneen xaaju càmmoñ moom nga raxas ko ba ci oom ta ngay bomb nag ngay ta bomb moo tax ma la ku bomb bi yedday bi yedday loxoom bi isri sabbil maay ci ginnaaw sotti ndox ma saa yoo sottee rek da ngay bomb bomb bu dee ci ngiru maali dañuy jàpp ne farata la am na ñu ne nag du farata kii sang jarab bu xëppoo woon nit hmm. bomb kañ mu ne at xatta ya umma ba muy matale jasadahoo yaramam wax waaw yaram bi daal na fépp tooy ndox moom na fépp na fépp tooy ndox yaram bi waaw fépp daa wara a ndox war ma tooy ak ndox wama lu mu sikk sàkka an yakuna muy nekk almaa u ndox ma axasahu di ca àgg mooy di ko jot mooy dafa àgg rek min jasadi ci yaramam wa aawa doxoo mu baamu ko bil maa i ca ndox ma wa dalakahu te mu raggu ko bi yadihi ci loxom ba xatta yuuxiba ba ba muy matale jamiixa jasadihi mboolem yaramam ba nee na booy sangu jana ba daal lépp looy sikk saak naan ndox ma àgg na fa wala àggu fa nee na sotti fa ndox ma bomb bomb ko sa loxo ba mu wóor na la ne yaram bi fépp mat na sangu jana moom moom taamimu jamii yaram bi fépp dana tooy ak doo bàyyi fenn waaye liy feeñ ci yaram bi daal fépp dana tooy ak ndox waaw dana tooy ak ndox cangaay la doo ko mat mhm. xel yi muy waajo wax mu ne wayu taabiu te muy topp muy topp di saytu umqa surratihi xóot xóoti jumbu xam ba wa taxta xalqihi ak ron baatam ba wayu xallilu muy xalil shaara lixiyatihi karawu sikkimam ba dee góor wa taxta janaaxayhi ak ron yaari poqotaanam ya wa bayna alyatayhi ak diggante ñaari njekki kaayame sa ñaari toogukaay toog toogukaay ngir teggin xëy na sa toogukaay yi am na rëdd fa jaar nga raxas ko waruf xayhi ak teppa xoom ba mooy fi pooj bi saxee mu lañ tuddee tepp ko ruq boobu fi pooj ba saxee wa taxta rukk ba tey ak ginnaaw ron ñaari óomam ya wa asaafila rijlayhi ak ron ñaari tànkam ya waaw yooyu dalay limal yi nga xam ne booy sangu jaraba boo tindi ko du tooy te doo ko yëg la ci njëkk mooy sàccu mbox bi sàccu mbox dafa am baax kon da ngaa war dugal sa baaram yëngal tuuti waxuñu nag nga di ko dugal bu baax di kii di gaañ sa bopp waaw naka noonu saroon baat waaw ten am na ñoo xam ne seen dañuy am ndombay baat boo sottee ndox mi noonu rek mën naa am baat dox baat bi ron baat bi am fu lemu foo ndox mi dafa àgg <coughs> naka noonu bu dee góor karawu sikkim bi nga bàyyi ko xel waaw koy yëngal bu baax ba ndox ma àgg ca der ba ba ndox ma àgg ca der ba ndax sangu bala ba la bokkut ak jàpp waaw bu doon jàpp sax da nga koy raay ca kaw rek <coughs> naka noonu sa ron poqataan gis nga poqataan dafa ruqe nga bàyyi ko xel sa ñaari toogukaay yi doomu adama ñaari njekki kaayam bi mooy booy toog li ngay tooge sa suuf gi dafa nekk ñaar léegi nag seen diggante nag foofa dafa xat moo tax foofa na nga dugal sa loxo raxas ko bu baax a baax a baax a baax sa teppaxo yi mooy sa pooj bi fi mu saxee ah, foofa ab ruq la waaw ah, ab ruq la nga raxas ko sa bëti oom yi ci ginnaaw foofa tamit nga xam ne comme day lemu léeg-léeg mu xaw a kii boo ko bàyyiwul lu set naka noonu sa ndëgguy tànk maanaam boo tegee sa tànk ci suuf léeg-léeg eh, am na am na diggante boo xam ne mel du laal suuf lu ko xaw lu xaw a jóg tuuti loola tamit boo wëttandikul rek kon daal nga bàyyi xel sa tànk bi sa siis yi <coughs> eh, sa yeeg lépp lu ci aju nañ la ko jàngoon nañ ci jàpp rek foofu dafa bari yoo xam ne tànk mën naa xar wala nangam nangam loolu lépp nga di ko bàyyi xel te lu ca ndox ma aggut cangaay lu du mat te bu cangaay li matut boo julee man boo julee du baax wa yu xallilu muy xalil moom mi sangu janaba asaabiha yadayhi eh, baaraami eh, loxoom <clears throat> wa lu tamit raxas na rijlayhi ñaari tànkam axira zalika ci mujjëg loolee nga bàyyi xel nag booy sangu janabaat sa xarantey baaraam yi nga xalil ko moo xam ci loxo la wala tànk la lu mu mën a doon nee na bu lii lépp àggee nag waaw nga xam ne kon xëy na andiwul li tàmbalee ci nga nga bëti óom ba fa baaraamee yem maam ba fa tànk ba jeexe loolu indiwu ko waaye bi mu nee nga raxas yaram wépp rek loola duggaale na ci biir loola duggaale na ci biir kon li tàmbalee bëtti oom tànk ndeyjoor li tàmbalee bëti bëti oom bi ba ca baaraami tànkee bu ndeyjoor boo ba nga def koo càmmoñ bu dee tësu si xaar day raxas sa dënn ak sa biir ak sa digg ginnaaw ngir mu gën a mat rek ni boo ko defut fekk fekk yaram bi set na ba tey baax na léegi nag nee na bu fekkee ne nag kooka dafa dafa rëxasutoon ay tànkam ba muy yàpp kon mu wayax silu mu raxas rijlayhi ñaari tànkam axira daalika ca mujjëg loolee mu jug ma nga ne yej ma dana boole zalika loolu fiihimaa ci ñoom ñaari tànk yi li tamaami <coughs> guslihi ñeel matuk sangoom ma wala tamaami wuduihi ak ñeel matuk euh, njàppam ma in kaana ndem nekkoon axara di yéexe xaslahuma seen wu raxas ñoom ñaar bu fekkee raxasul na ay tànkam kon nag day euh, raxas tànkee rek waaw xam naa lim naan wa yaxsilu rijlahi moom xam naa fii lim jubla mooy bëti óom yi xëy <coughs> waaw euh, kon daal boo raxasee bëti oom ba ci ndojor yi raxas bëti oom bee ba ca ndojor ba kon tànk yi moo ci des bu fekkee bi ngay jàpp benn benn raxasoo woon tànk nag nee na kon léegi da raxas tànk yi su ko defee nga xam ne njàpp mi matandoo njàpp ak càngaay li ñooy matandoo loolu rek la bëgg a wax na wattandiku de an yamassa muy laal zakarahoo sawukaayam moom góor gi ni jigéen laal sawukaayam du yàq du yàq am njàppam jàngoon nañ ko kon góor gi na wattandikoo laal sàkkaraam fii taddal tadallukihi ci ak raggam bi ni baatini kaffihi naka watandi ko laal ci biir tënkam waaw boo xasee ba raxas sa awra ba noppi na nga wattandiku sa loxo bi sa tënk liy weex sa loxo bi ak sa cati baaraam yi di ko laalaat waaye ci gàttal li mu bëgg wax rek mooy na wattandiku daal defaat luy toj njàpp lool nag bu defaatee luy toj njàpp yëqul dara ca sanguma de waaye na xam ne kon amul am njàpp mënta sa ca ngaay loole mënu caa julli boo génnee bu bëggee julli a laal alxuraan wala yu ko la bëgg wax fa in faala def na zalika loolee muy laal awraam waqad aw aba te fekk matal na tuxarahoo ca ngaayam la aada mu baam al wudu njàpp ma dong waaw bu fekkee ne danga sangu ba sangaay li jeex nga laal sa awra ah te boo génnee dangaa bëgg a def loo xam ne njàpp mënu caa ñàkk nee kon bay boo nga jàpp rek bay boo nga nga yéenuwaat jàpp rek nga daal di jàpp wa in massahoo ndem laal na sawukaayam fi ibtidaai xuslihi ca tàmbali sangoom ma wa baada an xasal ak gannaaw ma raxasee mawaadi al wudu i cëri njàpp mi ah barab bi mooy cëri njàpp mi rek minhu ci moom aji sangu ji fal yumirra kon na jaarale waaw ah, na rombale baada dalika ci gannaaw loolu bi yedee ci ñaari loxoom ala mawaadix al wudu i ala mawaadix ci cëri njàpp mi al wadu ak al mën naa nekk waaw mën nañ koo damm mën na ko rombale bil maa i ci am ndox ala ma yan baxi ca la jaadu min dalika ca loole wa yen wi itam koy yéene nag maanaam bu fekkee ne nag dafa sangu ba ci digg bi gannaaw boo xamee ne raxas na cëriñ njàpp mi ba noppi mu doog a laal sàkkaraam nee na kon jërul muy tàmbalaat cankaay li de waaw na baamuwaat njàpp ma rek waaw na baamuwaat na baamuwaat njàpp ma rek ci misaal nit ki ñu jàngale waaye la ni ñuy sangoo ni ko téere bi jàngale raxas ay loxoom ñetti yoon raxas li tàmbale jumbo xam ba ci bëti woom kanam ak ginnaaw tam teewlu yéene ji buy raxas sàkkaraam njàpp njàppum benn benn bu njàpp ma jeexee mu daal di tooyal ay loxoom teg ko ci ndong gi xëcc mu ñëw ci jëbi mu delloo muy xalil bu noppee as ñetti as raxas boppam dégg nga bu noppee raxas nopp ndeyjooram nopp càmmoñam sa nopp ndeyjoor ak càmmoñ boo koy raxas dangay def la la sëñ Tuubaa jàngale woon waaw da ngay dëngal sa bopp bi mu fekk ji loxo bi waaye bul jël ndox mi sotti ko ci noonu waaw ko ci sotti ko ci noonu su ko defee euh, xalil gi ngay xalil sa bopp doo koy raxas nag day dalay yombalal rek ngir ndox mi gën a gaaw a mën a jàll ndax boo ko tooyalee tasaare karaw gi day tax boo koy raxas mu gën a jàppandi tey nee ñu lu baax la ci wér gu yaram ndax boo jekk jeg sotti ci ndox mi noonu mën naa jur ay soj feebar yoo xam ñaari du yomba du yomba wér kon boo raxasee nopp ndeyjoor nopp càmmoñ nga raxas sa doq ba mu wër nga xaaj sa jëmm raxas côté ndeyjoor bi ba ci óom nga jël côté càmmoñ ba ci óom ba nga jël óom ba ba ca dojor ba bu ndeyjoor boo noppee jël óomu càmmoñ ba ca dojoor ba boo noppee nag nga daal di raxas tànk yi bu fekkee da nga koo yeexe woon nga ne kon lépp moo bokkandoo ñoo bokkandoo mat kon nag bu fekkee da ngaa sangu bi nga nga bi bi nga jàppee benn benn ba noppi te càngaay li nga def luy toj njàpp te kat njàpp njàpp yow da nga koo soxla boo génnee kon da ngay jàppaat rek da ngay jaarale ndox ci cëri njàpp mi continué waat càngaay li bu la wóoree ne yow njàpp mi doyoo ko dara loolu yokkul dara ci ca càngaay la da ngay continué rek waaw nee na nag bu fekkee yaa ngi jàppaat da nga koy yéene bu fekkee yaa ngi jàppaat danga koy danga koy yéene kon cangaayal janaba mi ngi noonu noonu la ko jàngale loolu mooy anam gi nga xam ne mooy li gën a euh, tabarkàlla li gën a rafet bu dee faratay sangu nag juróom la mooy yaram wépp na tooy ndox ak yéene ak toftale mooy loo def teg la ci des bañ raxas dara di xaar lu yàgg ko raxas leneen ak bomb ak xalliil karaw ak bu dee ku mel ne jigéen la comme ay euh, létt wala yu mel ne mu bës ko ba ndox ma mën caa àgg bu dee sunna yi moom juróom la raxas ñaari yoon raxas bi ngay tàmbali bi ngay tàmbali cangaay li rek raxas bi ngay raxas sa loxo ñetti yoon ba ca sa sa tëkk jaara gàllax ndiku sarax euh, ak fiiru ak masaa bën bëni nopp mi waxuñu nag jëmmi xottu nopp yi moom euh, farata la moom hmm. loolu moom yooyu yooyu yooyu mooy ay sunnaam yooyu mooy ay sunnaam tabarkàlla bu dee am na juróom-ñaari ngëneel mooy booy tàmbali nga wax bismillah dégg ak bala ngaa tàmbali sangaay li xobbi ko ngay xobbi ko mooy raxas ngay raxas sa jum ba ci bëti woom nga xam ne fu sobee nekk nga dindi ko ba noppi doo ko tàmbali cangaay li moom it farata la ak njàpp euh, euh, ngëneel la laa bëgg a wax ak jàpp benn benn gi ngay def ci biir cangaay li euh, dégg nga ak tàmbalee ca kaw di wàcc di ñëw ci suuf dañuy bëgg cangaay li day tàmbalee ca kaw ngay wàcc gis nga dangaa raxas sa bopp bi raxas sa wetu ndeyjoor au mu mu ndeyjoor bi gis nga mu muy jóge ci kaw di wàcc loolu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu sopp la bu lépp looy raxas boo amee ndeyjoor ak càmmoñ nga jiital ndeyjoor doog cee teg càmmoñ ak booy raxas bopp bi nga def ko ñetti yoon ak néewal ndox mi yooyu yëpp lu ñu lu ñu sopp la wallahu taala aalam boo dee la ca tasu si xaar yi moom danañ la indil wala ak jawharu nafis yaag wala kiy jàng laxdariw détails yooyu yëpp ak yéen ci sibag yëpp mën nañ koo indaale ci yeneen téere yi wallahu aalam